sëñ bii Denis nduur ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay bu baax. Euh, membre nga ci ligue sénégalaise des droits humains nga nekkit consultant international ci wàllub euh, droit humain naka noonu tamit euh, nga jiite woon lii di assise nationale ci Sénégal section Amérique du Nord États-Unis ak yeneen i ndombal tànk ak yow kon dañuy wax lu bëri ci lu jëm ci actualité internationale bi nga xamante ne li ko gën a lëmbee jamono ji mooy Mali ak président de transition bi Bandaw kii di premier ministre am tamit di Mokhtar Wane gannaaw bañ leen tiye militaire yi def ko ñuy annoncé tamit ni dañ leen a destitué te ki ko def muy vice président de transition du colonel Assimi Goïta situation boobu ndax mën nañ ko méngale ak beneen coup d'état waaw comme euh, niñ ko mujjee yëgee yi mën nañ jàpp ne coup d'état ndaxte ab transition bu doon dem la ñu dogale ko war faa teg beneen transition parce que il faut que beneen transition mën a amaat mm-hmm. balaa ñuy mën a organiser élection yoo xamante ne day leer transparent ba nga xam ne ci gis seen bopp li may faral di wax rek gis nga ay soldat bu ñu yoree réew même bu fekkente ne pour pour euh, diir bu ndaw la sax du du du lu gën hmm. parce que ñoom seen seen coobare mooy ñu nekk ci camp yi tax loolu mooy soldat bis bu ñëwee ci nguur rek xam nga ne dafa am ay soldat yu bëri yu ko jàppale hmm. te bu ñu bu ñu ñuy di jàppale ci ñëw mu am lu ñu leen defaraat bu fekkee ne ne jot nañ ci nguur gi waaye bu fekkee ne yow nguur boo ma jot dañ la ko dénk rek pour un moment en tout cas boo xam ne du yàgg ci diir bu gàtt. day xaw a jafe pour nga satisfaire ñi nga xamante ne ñoo la joxoon ñoo la jàppaloon ba nga yegg si fi nga yegg si. tey dafa am ay kuréel yu mag ci Afrique soowu jant ñuy wax euh, CEDEAO ak euh, Union africaine sax euh, di di xeetu mbootaayu dëkku Afrique yëpp ñooñu dañoo fëgg ci table bi ne d'accorduñ ci doxalin bi ci lii ñu def ba pare ne it ne dañu bëgg ñu bàyyi ñëw ci nu mu gën a gaaw. ak te te mu doon nekk ci benn condition boo xam ne ngeen koy teg waaye ah mel na ñu leneen la ñu gis loolu damay wax rek ne li tax suñu réew yi ñu nasaxal ni ñuy yoree démocratie mooy que démocratie dañuy fàtte ne démocratie du dara loo xamante ne àqu ak yelleefu askan wi la maanaam nguur askan wee ko moom te askan wi moo tax mu jóg te askan wi lañ ko war a delloo loolu nag bu fekkee am na mooy que askan bi ñu ne ba gisatul seen bopp ci li nga xam ne moo war ni di jiite am na nañu sañ-sañu fippu fippu nag ci nga def ko ci dal ak jàmm euh, boo xamante ne da ngay wan ki nga fa teg nga ne man nii maa la fa tegoon li ma taxoon ma teg la fi defuloo hmm. man nag dañ fiy jóge waaye dañuy gis ne souvent am ba askan bi jóg mu am ku jaar ca ginnaaw récupéré ko hmm. loolu nag du soldat yi rek kese ñoo koy def des fois aussi politique yi dañ koy def ndax da ngay gis souvent ci yenn euh, jotaay yi Afrique yi bi ñu wax ay conférence nationale dañuy def ba dañuy def partage gato maanaam ku nekk da nga naan man lan laa ci lan laa ci am mm. réew bu ñu tollee boobu lan laa ci am rek ne la wóor na réew moom du jëm kanam. Mm. te ne la wóor na réew moom aussi réew fitna lay doon parce que dañuy gis ne toujours ñi nga xam ne ñooy nguur ñoom rek ñooy nguur bu ñu paree ñu ñu paree ñu joxaat ñii ñeneen ñi moom am na ñoo xam ne dañu mës a jot. donc kaaw daf ñoo war a soxal ñun ñii Sénégalais. Hmm. daf ñoo war a soxal ñun ñii dëkk Afrique sow jëm parce que dañu ne sa sa sa dëkkandoo bu amee di ko seetaan daan yegg da nga war a yem jàppale pour que lakk boobu bañ a war a yegg si si yow. Hmm. E e war tey wane seen bopp leadership Union africaine dañu war a tey wane seen bopp tey boo xool kuréel yooyu li tax ñu néew c'est parce que dañuy xaar toujours la conférence des chefs d'État dañuy am ay commission jox ay kuréel ay ay ay institution yu yu yu am mandarga mais malheureusement seeni doxalin ak seeni décision même bu nekkee doxalin bu mucc na ay décision ba ñu ko respecté sax duñ ko respecté parce que dernier mot bi conférence des chefs d'État la hmm. donc comme njiitu réew ñoo moom euh, li mu jéem ma damay dama leen di woo ci ñu bàyyi li ñuy wax toppandoo toppandoo boobu moo ñu rey parce que dañuy bëgg a toujours xool pays extanto yi organe ñuy def organisation ñuy def ñu ne dañuy def lu ñu mel mm. te buñ ko defee duñu xool xam ne moom méngoo li nga xam ne la bëgg ak lan moom méngoo ak loo xam ne suñu askan moom la mën ak lan moom méngoo ak li nga xam ne mooy suñuy valeur pour ñu mën a ne ah institution bi kat biñ ko lalee bu ñu jëlee décision sàngam ñii nañ ko nañ ko appliqué moo tax la exemple tey boo xool cour africaine CEDEAO gis nañu décision yu bari yi muy jël te Sénégal du ko respecté bu ci mujj mooy kaw parrainage bi ak até bi nga xamante ne cour bi wax na ko euh, affaire Karim Wade Khalifa Sall <laughs> euh, lu tax loolu lu tax mënuñu ko respecté ñun tamit waaw li tax loolu parce que dañoo am organe boobu may may wax léegi hmm. am na xam nga dëkk mu mel ni Togo mun nga gaaw projet lu nekk ci mbirum bañ a ak ak yelleefu doomu aadama waaye doo ko reproché ne yow koy appliquer la décision de la CEDEAO parce que ñoom dañu am organe boo xam ne moo koy gérer boo demee Ghana it noonu loolu nag moom la ñu war a fësal ba nga xam ne dëkk yëpp bis bu ñu jëlee décision force dañ koy appliquer wala daan day ñëw ci sa kaw daan boo xam ne mën a nekk amagro économique euh, politique et cetera ba pare aussi président yi aussi nañu waxante seen biir dëgg. dëgg bi mooy lan sama farandoo ñoo bokk kuréel waaye bu defee lu lu ne weng loolu damay noppi mhm. loolu nag mooy mooy yëfu naa fekk nga jéggal ma ci wax ji pour wax ne day mel ni ñoom euh, kuréel bi dañ ko dañ ko teg foofu rek pour teg ko foofu mhm. waaye bu doonee kenn ci ci ci ñoom dañuy xoolante seen biir ne ah kii de mooy sama xarit la preuve euh, le le président du Soudan du Soudan mhm. ba ko cour pénal international woowee dafa daan voyager lu ko neex waaye bés boobu day cëpp Afrique du Sud ñu ne ko ah yow boo fi yegsee de la bàyyi nga dem parce dañ laa woo dafa jëlal avion mu naawaat dem yoonam parce que xam na ne bu wàccee Afrique du Sud dina ko jël joxe ko ci yoon. Hmm. loolu nag moo manqué suñu njiit yi il faut que ñuy assumer wu seen xarit boo xamante ne président bu wàccee yoon bu yoon waaye dal ci kawam waruñu ko protéger wala ñu gëm. Hmm. moo tax ma ne nag mbiru Mali bi daf ñoo war a soxal. donc waroon dëgg yàlla lii xew Mali nii dañ koy naqarlu d'abord. Hmm. waaye man damay woote organisation ñu jouer seen rôle pleinement wala bañ a nekk dans hmm. créer rek pour créer parce que xam ngeen CEDEAO ba muy ñëw bële passé Ghana la bañ ko Ghana la woon neexuloon parce que gisoon nañ ne foofu waree la mu waroon def defu ko woon il ne sert à nga ñëw nekk médecin boo xam ne nit ki faatu na ba pare. Mm-hmm. parce que man ba mu feebaree ci instabilité yàgg na depuis Toumani Touré. Mm-hmm. ba ci noor loolu bañ ko waree régler du du tey. ndax dina yomb ndax dina yomb ñu jëlee militaires yi ca Mali ci ci pouvoir bi. mun na yomb ko mun na bañ yomb xam nga li tax mun na bañ a yomb mooy que ne. Euh, dafa nekk zone boo xam ne dafa am conflit interne ba pare. Mm-hmm. boo xam ne régler duñ ko. bu fàtte ne munissement mu la force des Français aussi bu fa nekk. di fay gaay di taalaat gaay donc pour éviter loolu ci ak diplomatie foog nga dem ci ak xel foog nga dem ci ak dal bu dul loolu da ngay taal daay ci kaw daay parce que am na ñoo xam ne ñu ngi xaar daay am pour ñu profité ñoom it ñu def li ñu bëgg a def parce que xam nañ ne unité bi amagul carrément ni ñu ko bëggee de entre le nord et le sud et le centre ak stratégie aussi mm-hmm. parce que comme ay soldat lañ te arme daf leen di yomb jege leen am na nooy demee ci ñoom rek ñoom daf leen di jaral lépp waaw te jaral leen lépp doomu ñan dañ ñoo koy fay mooy les civils ñu wax ci euh, mbiru Alex Sab nga xamante ni droit de l'homme yi comme yow yàgg nañ cee wax ba léegi histoire boobu jeexagul ñu ngi ko teg loxo euh, ci weeru juin bi wees ca Cap Vert boobu léegi euh, Washington nag ñoo doon laaj ñu daal di koy extrader maanaam yóbbu ko foofu boobu léegi nag lu bëri xew na fi ndaxte njiit réew ma soppi nañ ko léegi Joe Biden moo fi nag ay awoka Sab sax ñu doon sàkku mu daal di xoolaat mbir mi nu mu koy doxalee ñu gis ni ci coow yu bëri nga xamante ne États-Unis takk na ca wala sax moo ko lëmbee bokk na ci coowal George Floyd euh, mujj nañ ci ubbi ab procès ba sax daan nañu policier bi nga xamante ne moo faat euh, afro américain boobu ndax mm. Alex Saab ci boppam mën naa am yaakaar ci administration Biden bi waaw yaakaar mun na am yaakaar moom doomu aadama buy xeex ak ak yelleef toujours dañuy am yaakaar parce sa xeex du du du mës a jeex te ñun ci combat boobu la ñuy taxaw damay wax toujours ne ak yee nag bu ñuy xeexal nit du ñu xool ndax nit kii ndax dafa coupable wala coupable xam nga la ñuy xool dignitéem ak ak élève ndax dañ ko salfaañ léegi nag yoon moo war a def liggéeyam nit bu ñu ne yaa def nangam tant que juge prouvé wul ne yow mii yaa def nangam dañuy jàpp ne yow innocent donc présumé innocent ba juge bi di joxe verdictam ne yaa def waaye li gën a ñuul ci soobu mooy ki ñu ko seetal dañu ne diplomate la dafa am passeport diplomatique waaye boo gisee Cap Vert rejeté cet aspect diplomatique parce que ñoom dañu jàpp ne il n'est pas en mission diplomatique dans leur pays mais loolu superfuge la maanaam laafukaay la parce que yow nga nit ki ne c'est un diplomate te un diplomate am na ni ñu ko war a traité loolu rek moo la war a mun a may na yow lii waroo ko def ñaareel bi cour bu mel cour de la CEDEAO bu jëlee décision daal di ne kii dañ ko war a bàyyi dañ ko war a bàyyi immédiatement mais bàyyiwuñ ko donc seen cour suprême dañu bañ loolu parce que dañoo wax ne dafa am loo xamante ko ci mbiru yi ak ak yelleef comme aadama comme ñu ko nag kon du leen engagé loolu itam koy tuddee mauvaise foi parce que fii xootuñu kii ndax moom xaritu États-Unis la wala ennemi États-Unis dañuy xool dignité humaine ak li nga xamante ni statut bi nga xam ne moom la am te mu prouver ko sur papier avec son passeport diplomate en tant que diplomate. Hmm. waaye beneen bi moom bu ñu réeree mbir ne comportement Cap-Vert comportement bu ñu mën a analyser la ndaxte boo gisee tey États-Unis lépp lu muy def ci àdduna ci boole li ñuy wax géostratégique. donc mënul nekk loo xamante ne dañ ko def nii ñu def ko déedéet dafa am lu ci ginnaaw parce que bu leen États-Unis moom Juan Guaidó le reconnaître comme président. Mhm. reconnaître Maduro. Mhm. te comme dañu jàpp ne ba euh, Alex Sarr. kon li mu jógee Maduro la. ñu financé euh, Maduro. Mhm. donc dañuy jàpp ne donc moom waayam la donc dañ ko bëgg a jàpp. waaye Cap-Vert du ko defee noonu rek ci Mali for yéen a ngi fàttaliku procès ci seen après hmm. balaa mu doon am ci jamono Ablaye Wade ñaata yoon la la ñu ne dañu bëgg def procès mais Ablaye Wade lu mu lu mu exigé woon xaalis procès bi duñ ko mën a defee noonu te xaalis génnul donc toujours y a des intérêts qui sont derrière intérêt yooyu nag moom la Cap-Vert di xool aussi parce que États-Unis am na ko nit c'est des trucs euh, confidentiel ou géostratégique qui sont que bu ñu wax lépp ci mbedd mi waaye kuy xeltu kuy gëstu dina xam ne la la ci ginnaaw mbirum intérêt économique la. tey ñun loolu intéressé li ñu intéressé mooy nit ki daal fu mu mënti doon fu mu mënti nekk dañoo war a sàmm ak xam ak yelleefam. kon moom diplomate la nañ ko traité comme un diplomate. comme que cour de la CEDEAO dafa rendre une décision nañu respecter décision boobu. parce que te Cap-Vert bu fekkee tey ñu koy naw. Hmm. ci mbirum démocratie mais démocratie boobu bu xoolee nu mu nu attitude mu joué sur le respect du droit international dafay mel ni daf koy salfaañe ñu wax nag euh, ci crise Moyen-Orient bi ak États-Unis bi nga doon wax sànq mu mel ni euh, am na ci taxawaay ndaxte kon ci talaata gi gis nañu euh, ki jiite diplomatie bi mi ngi yoon foofu daje ak ñi nga xamante ñoo jiite yëf wax na ci ndimbal bi nga xamante ne war ñu ko jagleel lii di Gaza nooy jàngatee taxawaay bi nga xamante ne états am na ko ci coowal déjà Moyen-Orient bi. askan wu Palestine te damay faral di insister ci wax loolu ne bu ñu jàpp ne euh, problème euh, Palestine problème mu jullit yi kese la bu ma nee jullit yi musulman yi parce que ñëpp ñi gëm yàlla ay jullit lañ musulman yi kese la déedéet parce que dafa am benn parti ci euh, yawut yi ñoo xamante ne dañu gëm ci seen diine ne que ne foofu ñu dëkk noonu keneen waru fa dëkk ku dul ñoom ci seen diine bopp maanaam. yawut d'accord ñu ci euh, chrétiens yi d'accord ñu aussi ci nga xam ne dañu nekk ci yoonu islam hmm. léegi nag ci yoonu islam la ñu jublu mais bu ñu paree bu ñu amee lu ñu na leen wóor ci chrétiens yi la ñuy jublu pour bunu xatal leen pour génne leen foofu parce que ñoom lu ñu jublu mooy ñoom kese ñu nekk foofu parce que dañu jàpp ne li ñi nga xamante ne moom la leen yàlla wax ci seen téere mooy que ne dama leen jagleel benn terre promise maanaam benn dëkk boo xamante ne yéen kese yéen a moom di ngeen fa gis naat di ngeen nekk si jàmm waaye nag pour ngeen am ko da ngeen di nekk ci fitna saa su nekk te booy xool xëy na juróom-ñaar fukki at a nii crise baa ngi fi waaye mënu si ñoo nekk ci jàmm ci fitna la ñu mus nekk hmm. waaye kon boo ko xool dañuy naan toujours ñi nga xam ne dañoo noppi silence coupable noppi boo xamante ne noppi naa fekk la parce que xam nga yow fii métti te waxoo ci damay jàpp toujours ne ñooñu dañ ko def sciemment parce que c'est pour des raisons géopolitiques et géostratégiques grande puissance yi nga xam ne ñoom la ñu yaakaaroon tey mënoon ñoo jóg wax ci mbir mi fay ko mu jeex. Hmm. li tax waxuñu ci c'est parce que am na fu fu leen Israël téye dañu respecté li nga xam ne moo fi ne mooy lan lii ONU décidé woon territoire ku ne Palestine ñu jox la li nga moom Israël ñu jox la li nga moom. Hmm. waaye tey États-Unis mënuñoo set ci mbir mi parce que président États-Unis bu ñëw falu balaa ngay falu sax ci sa campagne dañ lay exiger. nga wax nga wax xalaat ci mbir mi boo ñëwee ba toog ci gànkoo sutu bi même chose da nga war aussi am noo doxale ñu xool ndax yow la nga waxoon sa campagne ñaan ci wala neexoo ci tey booy xool tey danaa euh, koor bi fi jóge dafa reconnaître que ne Israël ñoom seen capitale dañ koy jëlee Tel Aviv te Jérusalem ba moom mu tax mu andi ambassade am def ko foofu waaye te Joe Biden su fekkee ne neexul dëgg mën na remettre loolu yëpp en cause boo leen fàttaliku daal benn président moo fi def loo xamante ne am na woy mooy Bill Clinton moom fexe woon na ba vraiment à l'époque de Isaac Rabin ak Yasser Arafat hmm. mu fexe woon ba jàmm am ba pare mu nekkoon loo xam ne dañu koy séntu mu doon lu dëgg hmm. wala ci ab diir hmm. waaye gis nañu ba mu demee ña teg ko ñë bi président yi fa toppoon yëpp ñoom Bush ñoom ñoom Trump ils n'ont pas euh, topp ñoom ci hmm. ñu jeexalee ak ponk bi ñeel kon euh, wàllu LGBT wala boog borom ñaari tur yi nuñ koy waxee fii ñu gis ni dibéer gi wees ci Ndakaaru ak gox yu bëri ci Sénégal askan wi génn nañu doon ñaawlu loolu waaye tamit di sàkku ñu daal di koy criminaliser euh, xeex bi ak taxawaay bu bees bi ban jeexital la mun a def ci communauté internationale bi. jeexital bi moom dina nekk jeexital boo xamante ne dina am dayo ah, dama koy faral di wax man su may dem ci la rencontre au niveau international damay wax toujours samay naataango yi xeex ak àll ak elleefu doomu dama ne leen man dafa am li ma gëm dafa am fu mu juddoo dafa am dama am waaso mhm. dafa am loo xamante ne moom lañ moom mooñaale te lool dama ko gëm mooy samay valeur africaine mooy samay valeur en tant que sénégalais. Hmm. te suñu kuréel ci loolu lay dox te ñi nga xamante ne ah ñi ma xam bopp ñu bëri ci ci loolu la ñuy dox lu dox loolu parce que réalité yi du ñu benn man su may di dignité ak ak élèves yi nit ñi koy xool laay xool. waaye aussi du caagane du ma fàtte ne nit boobu la mu dund ci société dafa am loo xam ne da ko ko war a sàmmal dans une société dafa am lu ñuy wax la hiérarchie des normes sur le plan sociologique pour dire que société boo gis lépp lu ñuy dund lu ñuy doxal société bi ñoo ci manqué ne ñun lii la ñu teg lii mooy norme yi ñu teg mais normes yooyu mun na varier suivant l'évolution des des des siècles et des années mais tant que fu mu nekk la nekk tant que le peuple euh, n'a pas bougé on ne peut pas forcer le peuple à bouger te man yaa yaakaar naa ne doxu ñaxtu boobu pour criminalisation lu lu lu normal la parce que tout simplement euh, dañu jàpp ne c'est pour conserver les nga xam ne moom mooy valeurs yoo xam ne moom lañu ci hmm. nga xamante ne moo lay jox nga lekk mun na laa obligé na ne fii nga yegg waaye nag yaa war a am sa ngëm-ngëm bopp yaa war a am sa dignité bopp dama koy faral di wax. avec les assises nationales on a vécu la même chose ba ñu ma def fii pencum assises nationales ñi ci boppam dañoo weddi xam nañ ne dañoo bëggoon ñu andi ay financement yu jóge étranger pour mën a doxal liggéey boobu mais dañoo xoolaat suñu biir ñu ne mukk bi ko nangu parce que bis bu ñu ko defee ñeegital bi dinañu ne yéen ñoo leen joxoon xaalis kon nag lii war ngeen ko cee dugal lii war ngeen ko cee génne te loolu taxu ñu woon jóg hmm. donc dañuy bàyyi di wax ne dañuy tey am na dëkk yoo xam ne dañuy appliquer cette démocratie moom. Hmm. je peux donner exemple de de l' Éthiopie pour dire tout simplement que ñun itam Sénégal war nañu am suñu démocratie boobu boo xam ne dañ ko nampé ci suñuy racine hmm. yoo xamante ne loolu la ñu gëm lii lu baax la lu ñu war a conserver. waaye bu fekkee ne suñuy njiit yi ñoom topp ñu askan wi dañu bëgg topp ñu askan wi seen i gis-gis toujours dafay am problème parce que ñoom bu ñu génnee ci biti bu ñu bëggee xaalis ñu lebal leen ñu signalé leen loo xamante ne méngoowul ak li askan wi mooy seen aspiration de la hmm. ci erreur hmm. te ñi ko def yëpp ci nga xam ne moom la ñu bëgg ñu ñaan yàlla nag ñu yàgg ci yooyu xam ne suñuy des Africains et nous devons en être fiers nous sommes des Sénégalais et nous devons en être fiers bokk nga ci kon euh, Ligue sénégalaise des droits humains nga nekkit consultant international euh, jiite woon tamit euh, assise nationale Sénégal section Amérique du Nord États-Unis sëñ bi Denis Ndour ñu ngi lay gërëm bu baax